boo ko bëgg loo xam ne lii gannaaw julli juróom bi nekk na julli juróom bi ñu ko defee nga di ko def mel ne supplémentaire tuyaaba jaamu yàlla jaamu yàlla yéene ji sell na benn da nga bëgg yoon mooy jaamu yàlla bi gën a suufe ñaar bi ci digg bi mooy ngay jaamu yàlla ngir topp digal yàlla santaan ni ñu di ko topp te bañ ko mooy boobu mooy daraja ji ci tegu jaamu bu gën a kawe mooy nga di ko jaamu ijlaalan di ko man mooy nit ki day dem ba sopp yàlla soppaay goo xam ne buñ tere bu diglewul woon ñu jaamu ko it nga di ko jaamu ndax mooy sa bànneex mooy ñu gën a kawe naafila nag moo tax ñu wax farata mooy farata la mu ñett wata ak kada fedd li kot na mën naafila ba ada maxribin xanaa buñ jullee tamit ñaar rakaay ñu def ci timis wala ñeent wala juróom benn sun kii toppeel gu feddliku la te zuhrin naka noonu tisbaar moom itam wa qablaha ak la ko njëkk wa qabla zuhrin arbaan wa baadaha wa qabla asrin arbaan la baadaha tisbaar moom dawal ñeent boo julee sax ba toppal ci ñeent bi ñu sopp la ka asri naka noonu takkusaan bi la xaddin nag ci lu dul dayal ci naafila amul dayal fekk li jiit takkusaan la waaye gannaaw takkusaan ci noonu duuf ba gën a naafila bila xaddin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Aïcha radiyallahu anha nettali na ne yonent bi gis na wees fukki rakka ak ñaar yoo xam ne weetar la ca teg muy fukk ak ñett muy ci ramadan muy ci dugub ci ramadan tey naa si laa mosul wees loolu waaye nag taxaw na di julli ba tànk yi néew yi ñu xam ne kon ay rakkaam daana yàgg foofu ñi nga xam ne dañoo werante boo dee naa fi la rakkaa yu bari ak taxawaay yi yàgg ak sëggaay yi yàgg sujjóot yi yàgg lu ci gën mu ci nekk am nañ luñ tegtaloo ñi nga xam ne dañu ne rakkaa yu bari yi moo gën ndax waxtu woo xam ne rukkoo nga wala nga sujjóot sa bàkkaar rot kon bàkkaar yi nañ gën a rote moo gën a baax ñii si tegtaloo ni sallallahu alayhi wa sallam mosul julli lu ëpp ñaar fukki rakka ak ñett te tànkam ne wi ne si julli kon ñu xam ne taxawaay yi yàgg daan def ñu ne kon looloo gën ñee waxoon wax ju njëkk ja tontu leen ne leen moom xufira lahu maa taqaddama wa maa taaxara nag gannaaw amul loolu bàkkaar yu bari yu gën a sippiku moo gën ci noonu waaye ñu ci nekk am nañu tegtal bu wér mu ni wabdu xaa sopp nañu julli yoor yoor ba matale ko ba surun yelu nag ji ci jàngee naxaaran ca bëccëg ba jaxarun ak biral jàngee leelan ca guddi wata akkada fedd kot fedd likoot la ba tey bi witri weetar moom moo gën a warati ndax loo mën a julli rek mu tóol ci guddi gi wa taxiyati masjidin ak nuyu jàkka nga àndam njàpp dugg ci jàkka waxtu wu dagana naa fi la nga julli ñaar rakka fekk yaa ngi njàpp ñu bala ngay toog moom kile la moom itam ci lu ñu sopp la waxuñu ne farata la fekk li ko waxuñu ne sunna la waaye lu ñu sopp la mu ni jaaka daga nakk ko maar ren bàyyi aji romb tahiyatul masjid dafa jaar rek ci jàkk ji wéy dafa jaar ni jaar ni dal di jaar mu ne dagan na dagan na la wax wata addat jox jooxoot na moom tahiyatul masjid bi fardin ci farata fekkee na nga war a julli julli farata boo bàyyi yoon wala waxtoo ma jot nga kàbbar julli ko taxaw na taxawaayu tahiyatul masjid soxlaal ko ngay taxaw boo bët un ba tey sopp na soppeeku na tàmbalee bihaa ci moom di masjidil madinati maanaam bihaa di taxiyati bihaa di taxiyati maanaam waa ko fekkee ne masjidil madina la qabla salaami alayhi bala ngay nuyu yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga tàmbalee ci taxiyatul masjid way xaawu naf lin sopp nañ ba tey tàbbal naafil la bii ci jàkka jooju mooy masjid bi madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ni bi musallaahu ci jullikaayam boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo dee naafil la sopp nañu nga dem ba ca sopp daan taxaw bërëb baa nga far màndargaal nañ ko nga dikkee xam ne fii da daan taxaw sallallahu alayhi wa sallam wal fardu ba tey fekkee ne ñu ngi jullee farata sopp nañ nga def ko bi saf si la wali te sàpp si njëkk jël ngir bari tuyaaba wa taxiyatu masjidin nuyu wa taxiyatu masjidi màkkata ak nuyu jàkkay màkka maanaam taxiyatu masjidi màkkata taxiyat tawaaf dégg nga voilà taxawal ma kenn fee di nekk rek taxiyat ko ci ñoom ñu yor ko fa in kaana aafaqiyan aw ufuqiyan fa dalika wa in kaana makkiyan fa salaatu in kaana tajran sa araada juloos bi wa man tuwaabin xam nga ñu nekk ñi dëkk Màkka ñoom wër Kaaba gi yomb na leen julli julli moo ëpp tuyaaba si ñoom ñaareel bi miin ki nga xam ne moom lañ koy miine na muy def ci xolu gan ñi du ko def ci seen xol fekkee nag gan la moom di wër kaaba gi moo ëpp tuyaaba julli di julli waaye sopp nañ ko tawaaf wa taraawixoon taraawix mooy naa fi la koor fadlikoot na tamit ba tey mu ni wan firaadun ak wéet biha mooy yow rek nga bëgg ngay julli say naafila bu dee farata xam nga mbooloo bi moo gën ndax na mbooloo ko gën a bare tuyaaba ci yokk bu dee da ngay naafila nag na nga ko gën a nëbbi moo tax ñu sopp ngay wéet nga dugg sa ruq rek di naafila waaye ci sartu innam tu àttal ndem du yokkoon al masajid du jàkk yi ndegam bu fekkee du nit ñëpp ñu ngi ci trawiex bu fekkee nit ñëpp dem nañ jullee seen néeg ndax ni moo ëpp tuyaaba ngir ndax mucc ci njistal jàkka yi dana ni wéyeen kenn du fa nekk kon booba nag soppee fatul gënee fatul a sopp julli wet infiraad maanaam weet yow rek ci sa ruq wal xat moom ak àggale wàcce ba tey fiiha fiiha wala fii maa ngeen bind waaw mu ni soppeef na ko ba tey ñeer ilimaan fiiha maanaam ci traweex maanaam ci weer bi yëpp daal wàcc ci kaamil bi ci julli ni ñuy def ci yenn réew arab yi ñu leen di ngeen mel ne jaamu seetoon ko def man bu imaam bi jiite nii traweex sàppe si ci njëkk yëpp ay xaafis ay xufaas lay doon nga xam ne ñoom duñ yëg sax mu gàgg bu xawee kilig na rek ñu daal di gàggante a suuratin a saar tujj si dana doy sunu échiron mu ni jàng saar wi ba weer wi maanaam weer wi benn saar nga ci jàng li ki bàqara wala Ali Imran wala Nisaa wala Maïda wala amala wala Falaq boo ci fab rek jàng ko ci weer wi ba mu pare dana doy dana doy maanaam nga ci dina koy daggat daal ba mu nekk fanweer toog dana doy kii jàng alquran yëpp wala ko am maanaam nag laajoon nañu limaam Ahmad ibn Hanbal ñaar ñi fanaane julli kii julli ñaari rakka rek ndax jàng yu gudd ak ki doon jàng di sëlmal ki doon julli di sëlmal jàng ay saar yu gàtt wala ay aaya ku ci ëpp tuyaaba mën a ñooy maanaam daal seen ëppante tuyaaba nga aju ci seen xol yéen ak seen teewlu kon ba tey daal ndax nit ki mu ngi si julli mu ngi si julli rek see boo di rukkoo see boo taxaw si wut bi mu ngi si julli rek te fii fa mu kàbbare ba fa muy jeexale yëpp dañ ko koy bindal fu ci xolam jógee ci julli gi dem ci mbiri àdduna rek diggante boobu dootul amee dara waaye feek mu ngi si julli gi wala maa am na si ñoo xam ne dañoo xalaat sa diggante ak yàlla waaye li gën moo di sa xel ci julli gi ne ci julli gi dafa am benn suuf yi boo xam ne dafa ne seytaane daal du dañ mukk di ma jax jaxalal ci julli ñu ne ko ci lan mu ne ci sama xol ñu ne ko ci mbiri àdduna déedéet maanaam teewlu sama digg ak suñu borom ak li ma koy ragale noonu la may jax jaxale xasaal yi ne gis nga nitu yàlla dëgg seytaane du naagu ci moom waaye lu mu am ci moom rek mu doy mu mu dana ko dana rëy ci moom mu nekk kooku nga xam ne dafa waroon di xalaat saar yi muy jàng bu taxawee maanaam saar wi bu rukkoo sàbbaa yi mu fi sàbbaa nga xam ne foofu bérébu toroxlu la bu ànd ak sellal suñu borom bu këppee jéem bérébu toroxlu la boo xam ne ànd ak teewlu tabeek suñu borom bi ak di ko ñaan li mu seytaane fexe ba jëlee ko ci loolu waaye mënu koo tee xolam nekk ci suñu borom kon dana ko wàññi tuuti waaye mënu koo yàqal tax ndax biñ ko waxee ne waaye doo jax jaxal xalaatu adduna mu ne ko kay ñu wàññi sama daraja lu toll nii diggante asamaan suuf moo ko gën a fi dañu ko kon xelam de bukk ci mbiri adduna
nga xam dafa tënk ci benn fukki si ba juróom moom jublu ci ne koy dëgg mu mokk tënk ci li nga xam ne buñ dee jàng rek diggante boobu lay jàng ci ko maata laal ba ñu ne fëtt jublu ci maanaam jublu ci bañ a fëtt daal nafaraale daal waaw fàttali ko
bàyyi li ci des bari ko lool sax ndax loolu bëri waaye baax am na ñaari njëriñ dana nafar dana julli bu ko dee teewul rek mu baax bu ko dee teewul Hmm, fu mu tollootee?
ci des
kii ci salaas mooy siroon de dana doy masalan ci li ñu sopp ci jàng alquran mu tegu ci fatiha rek ci trawia mu ni moom ñaar fukk ak ñett la ci ay rakka ak safa witar ànd ci maanaam saxaaba yi ak taabi'oon yi ñoo ko daawoon def ndax buñ masaan jullee ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam fukki rakka ak ñaar dégg nga fukki rakk ak ñett bu ñu demee seen kër ni mu ko waxee ci risaas rek dañ delloo jëliwaat fukki rakk voilà waaye saxaaba yi ñoo ko doon def ak taabi'oon yi du woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni kon dana doy mu ne ñaar fukki rakka ak ñett yi su ma joxee la topp defee sittan juróom-benn juróom-benn ak ñaar fukk ak ñett muy ñaar fukk ak juróom-ñeent su ma joxee la moom maanaam dañoo mujj yokk juróom-benn waaw ci jamono ñaar aji ñaareelu rakkam ba boo xamee ne jiir nañ ko mu ñëw kàbbar fekk ñu nekk ci rakka ñaareel xam nga bu ñu toogee taaye sëlmal moom mu war a mottali ñaareel day gaawal dafay gaawal mu àgg ba mu am ñaar rakka fekk sëlmal ndax moom gannaaw bu fekkonte ne fekk nga mu sëlmal nga xam ne moom ñaari rakka la war a tegaat wéetarit nga ànd ak moom si ñaar yooyu bu la neexee bu sëlmalee nga continuer yow sa julli bu la neexee nga sëlmal te moom nga aju si yow comme ni ñuy defee Madinatul Munawwara tahajjud bi nga xam ne ñetti ilimaan ñooy ñëw kii jiitee gee gi ba noppi julli nangami rakkaa dem keneen ñëw julli nangami rakkaa dem keneen ñëw julli nangami rakkaa dem xam ne mo fukki fan nag yi mujj ci koor gi ndax ndax di lamtu leen fi pag yi daanaka buñ mosaan buñ mosaan julli ba ba àggale nga xam ne ay gan lañu bokk ñi fa dëkk dañuy xër ci julli lépp bu ñu fa jógee rek dañuy xëtti ci julli géej gi suñ jullee géej naa fi buñ fa jógee dañu xëtti nga xam dafay yàgg ndax ñoom rukkoo bi rek mën nga fay jàng bàqara siggiwaat bi mën nga fay jàng surtout zariyat moom jeexal nañu ko si sujjóot bi itam mën nga fay jàng bàqara benn sujjóot bu nekk dafa gudd gudd dafa jub boobu dafa metti lool taxawaay bi nag moom kooku moom moo raw yëpp moom taxawaay bi moom fukki xisib ak juróom mën na fay ko mën ko fay jàng da nga taxaw ba sa tànk yi metti mu ne wax a fawee falat na mas boo ko xaa ku ñu jiitoom saa ñeete wa aji ñaareelu rakkaam wala xeqata mu jotee iman ji wa qiraatu shafin ak ba tey bokk na ci li ñu sopp tam feddali ko jàngi shafa maanaam ñaari rakkaay yi jiitu wéetar bi sabbix sabbi isma rabbikal ala lazi xalaq fa sawa wal kaafiruna ak qul yaa ayyuhal kaafiruna ci shafa bi ñaari rakkaay ñooñu wa witrin witrin itam sopp nañ nga jàng bi ixlaasin man surtout lixlaas wal mu wa mu awadatay ni ak falaqeeg naas ñu ne faw suba witr daal yooyu rek lañ ci sopp waxtu wu ne mu ne ah illaa li man daree ñeel jëmm di nga xam ne laxoo ñeel na ko woon xisbun ab dog boo xam ne daf ko daan julli léegi moom la daan def chefaam ak witram kooku fa minhu na ko def ci xisib ba na mu ko daan defee rek fii hima ci ñoom ñaar wa fi'luhu aku jëfam moom kan xanaa wiitar li mun tabi ñeer ak yeewu aaxira leeli ca mujj guddi ga fi nga xam ne wóor na ne moom dana yeewu pour naa fi la guddi sopp nañu mu bañ a weetar ba mujj guddi gi nga xam ba mujj guddi gi nga xam ne dootu julliwaat fa su yéene julliwaat mu daldi weetar bu ko defee mu boole ñaar yi ñu sopp gannaaw bu mu naa fi la ba noppi mujj naa wiitar ba noppi mujj na lu tóol julli na lu tóol guddeem ba noppi mujj wala mu it du baa mu xu wéetar muqaddamun aji jiital ko woon maanaam mu waxoon ne bu fekkee ne yow not na ngay yeew da ngay yeew boo ne da ngay yeew ci guddi gi nga bàyyi sa wéetar ba boo yeewoo ci guddi gi naa fi la ba noppi ba nga xam doo julliwaat nga wéetar fekkee nag ki nga xam ne nag du faral di yeewu moom mu jiital wétaram bu yeewoo julli baax na bu yeewuwul bu continuer waaye du baamuwaat wéetar ndax kon li mu julli dootu tool li julli du tool te dañu sopp nga julli bu tool ci guddi gi dañu inna allah taala witrun yuhibbul witra ndax juróom-ñaar ak ñett ñu fonk ko ci lislaam
waaye su ko bàyyi ba ba ba ba ba yeewu yi ba ba jiital mu mu teer soo ko indi moom.
waaw mën nañ sopp de waaye fekkee ne julliyoon nga li nga war a julli lépp ba mu gis wéetar moom da nga koo daal di mën a julli bala ngay naaw da nga daal di wéetar bala ngay naaw waaye su fekkente ne nag léegi fas nga yéenee julliwaat boo yeewoo ci guddi nga julliwaat li ngay julliwaat ba noppi soog a wéetar. ñu nga ma sàlla topp mu julli bu yeewoo dégg nga maanaam bu yeewoo rek ci guddi sopp nañ nga julli maanaam ngay nelaw ba nga yeewu ci julli fekk defoon nga say wéet rek yëpp nga julli xam nga loolu nga doon laaj ba jaasa dégg nga dagan na naafila na gannaaw bi nga wéetaree ba noppi gannaaw gi moom mu xam ne ne sax dana mën na yeewu waaye fasul yéenee naafila mu wéetar gannaaw gi bi mu yeewoo xelam dem ci daal julli bi du lu mu baaxu mu fas yéene ak julli mu julli mu julli moo gën sax ci moom ndax mu tàmm julli guddi tàmm nit gën tàmm nit yow fekkee ni yowal tàmmuloon waaye tàmmul na guddi tax tàmm yeewu fekkoon ne tàmm na yeewu waaye daawul julli dana yeewu jël jullee bu ko defee ñaari ñetti yoon tàmm.
tey jii dara boobu. bu fekkente ni wii wii dara ba pare.
waaw fekk tëdd ko.
waaw nga am nga jàppaat ci diggante bi ndax mën ngaa julliwaat.
bu fekkee ne bëgg nga julli nga julliwaat waaw. dañoo sopp nag wéetar bi mujj rek dañ ko sopp waaye teewul mu dagan nga julliwaat gannaaw sopp nañu li nga julli ci guddi gi tool sopp nañu it lu tool li mujj loolu moo tax ñu sopp ki nga xam ne xam na ne dana yeewu ci guddi gi mu bañ a weetar bu yeewoo julli li mu bëgg a julli lépp ba noppi soog a weetar
waaw naaj bi la guddi moom alaak laal dañ koy dañ koy dañ koy biral alaak waaw laal waaw waaye boo ko boo ko yeloo itam garaawul bu dee naafila wala naa ko bokk yàlla dañ ko raawal waaw mooy yi ñu wax defe naa ne ci juróom-benn masala yi ma leen waxoon yi farata wuuteeg naafila nga bu doon farata boo ko waree biral nga yellu ko moom di nga sujjóot ndax ñetti sunna yi nga xam ne wàcc na ko muy saar wi ak taxawaay bi biral gi ak yellu gi bu fekkee ne biral nga nag euh, wala nga yellu nag te waroon a biral nga xam ne kon da ngay sujjóot ndax wàññi nga qabla salaam waaye benn sunna la boo ko bàyyi woon it du tax mu julli gi yàqu ndax bu nekkul sunna su mu ak rek faaw mat ñett soog a mën a yàq julli ñoom ñaar ko ci gën yàlla jël ci biral bi
ci ci ci naafila naaj bi la biral naafila guddi waaw.
naafila guddi biral sopp nañ nga biral naafila bëccëg nga yelloon ñi nga xam ne boo doon julli farata du farata ci du maanaam du sunna su mu akkat comme ni mu ko nekkee ci farata euh, waaye sunna la ci waaye du yàq du wàññi dara mu ne wajaasa dagan na maanaam naafila gannaaw ba nga witre ba nga witre ba noppi wa aqiba shafin ak gannaaw ba nga defee shafa ba noppi mun fasilin mbir mu di aji faj ci an walis ko bi salaamin ci sëlbal maanaam shafa witre duñ ko boole boo jullee shafa ba mu jeex muy ñaar wala ñeent wala lu mu doon surtout ñaar yi mujj ñu la ñuy considéré mooy shafa wala li nga te li nga julli lépp shafa la ndax par ñaar raaka nga doon sëlbal nga sëlbal nag ba nga xam ne teqli nga koog witre bi nga soog a même bu fekkee da ngay wéetar léegi it bala ngay tëdd it nga sëlmal soog a fasal soog a wéetar ñu ne faaw mu ne ah illa lil iqtidaa yi ndaree ngir roy bi waasilin ci aji jokk nga ànd ak ci julli trawia waa ji moom dafa aada woo jokk xam ne kon du sëlmal dafay dal di jóg rek indi wéetar soo ko sëlmal nga topp si gannaaw nga def li mu def dégg nga mu ne dana la wax nag li ci nekk wet boobu annahu fi wasli waqtidaahu bihi makruhun nga kama yufidu kalaamaha moom fasale gi ñu ngi ko ñàkk fasale gi ñu ngi ko sibee ay lam yatabu fi waslihi wa sallama aqiba shafi fala yaqtulu ñoom moom bañ a sëlmal nga bañ ko toppit yow nga sëlmal du yàq du yàq sa julli ci am dara boo kuréel si béefut na mu bokk na nga ñëw ne ko bas lu ko jokkam moom safa ak biitar bañ a sëlmal boo witruun boo bi boo bi rakkaati boo kuréel boo witruun waaw soog a sëlmal waaw safa nga ba safa bi àgg nga bañ a sëlmal jóg indi we- benn rakkaa wiitar bi soog a sëlmal dagat na waaye waaw sib nañ ko sib nañu it ku koy def nga xam ko ba mu topp ci moom waaye boo toppee ci moom da nga koy euh, da ngay jokkale ne moom waaye nag boo ba tey boo sëlmalee itam bañ a bañ a koo topp du du la yàqal mu ne wakkuréel si bee fat na wasluhoo jokkam wa witrun ak witr moom itam sopp nañ ko bi waahidatin muy benn rek benn rakka وكري قراءة يعمل سنة فكرة وسنة وسنة بركعة واحدة من غير شفع قبلها دنجا جلدي كيرك دال دي جوك ويتر جلدي دارا غنا توكل كو سي دول فراتا جي رك اغ nga dal di naafi nga dal di wéetal mu ne même bu fekkoon ne ku feebar nga it wala ku tukki it sib nañ ko rek ñu koy def mu ne wa qiraatu saanin ak jànguk aji ñaareel limaan maanaam jeneen limaan sib nañ ko ci trawiya min xayri intihain mooy li nga waa ma dina loolu ñuy def moom daañu def ñett sax ba ñeent mu ni min xayri intihaai la wali waaye ci lu dul noppi parek maanaam aji njëkk ja xam ne ku njëkk ñoom dañuy bàyyi ba ku njëkk julli li muy julli ba dem nga xam ne ñi fi dëkk ñi ci gën a bari dañuy dem ñi nga xam ne nag dañuy gan te daawuñu faral di def tahajjud fa ñu dëkk ñu toog ñoom continue nekk ilimaani ñaareel ji topp ko ba mu sëlmal dem ñu nekk ilimaani ñetteel ji ndax nit ñi dañu dul ñëwandoo beneen dana am ñoo xam ne xaw dañuy tardé ilimaani ñaareel ji rek lañ fay mën a fekk duñ fi fekk ci njëkk ji ñii limaani ñetteel ja lañ fay fekk waaye gannaaw ci waxtu geey ba bañ jël dañ ciy nekk waxtu woo ñëwee ci guddi gi rek fay xëdd jotagul daa fekk limaan joo xam ne mu ngi julli nga mën a topp ci gannaaw trawiya gannaaw fi lépp bu dul trawiya soppuñu mbooloo di ko ànd lu dul ñi nga xam ne mbokkaluñu lu ñu jàng dañ ne sa waa kër ak ñooñu jigéen ñi nga xam ne wala boo leen bàyyi rek duñu naafila mën nga leen a entraîné ci naafila ji wala nga xam ne ñoom xëy na sax am nañ pas-pasu naafila waaye duñu xam lu ñuy jàng kooku moom mën nga leen a jiite naafila ci lu dul koor bu dee koor yool bi bari na ba tey waaye ci kii pas-pasam dëgër bi nga xam ne bu ñu ko bàyyee xëy na du sawar ci naafila wala du naafila lu bari kooku la mbooloo ma gën ci moom waaye ki nga xam ne moom yéeneem dafa dëgër comme ni ñu ko waxoon ci risaala xam ne bu demee ci naaf la léegi bu fa gisul kenn nit li mu war a julli dina ko julli moom mu julli ci néegam moo ëpp tuyaaba ngir mu gën a mucc ci sël bi ñu ko xam kon li nga min xayri min xayri intihaa illa wali mu tàmbalee foo xam ne du fala aji njëkk ja yemoon mu ni wa nazarun sib nañu ba tey ndax comprendre nga ne wa nazarun sibeef na ba tey ngay jàng di xool bi mushafin ci téere ba teg téere bi wala nga yor ko waaw fi fardin ci farata aw asna a naflin wala nga tàmbalee woon di tari ba mu yàgg nga fab téere bi rek ubbi di seet dégg nga waaye laa awaloo si beeful na kat nga tàmbali rek xabar rek fekk yaa ngi bokk sa téere dal di ubbi
kon naafila dagan na nga ko ci naafila ah tàmbalee bàqara waaw.
bu ma ko waaw tam nga tàmbalee bàqara rek léegi def foofu bu la neex dina ko di xool rek ba ba kanam bi yegg ci weeru koor mënees na ko waaw waaw tuyaab yi ñu wàññi kon liñ ci kii nag lim lay soxlaal nga xam ne da ngay xool mbind mi bañ a am surtout boo mokkalul di ko seetantal bu baax loolu dana tax te dana wàññi teewlu bi ak xusoo bi surtout xusoo bi ba julli moom xusoo bi waaye ci naafila la dagan waaw ci naafila ndax naafila gi moom bu la neexee sax bàyyi ko bu la neexee nga jàng jenn aaya na nga waaw ay laxlaas rek am na ñu def té- té- téeméeri laxlaas ñu ngi awas na anas na laa awalo waaye du saa génn si njëlbéen bi wa jamun ak mbooloo kasiiru mu di aji bari nii ñuy def ci jàkk yi waxtu koor li naf ngir naafi la aw bi makkaani wala ci beneen béréb boo xam ne bu dul jàkk itam bu si texir bu di aji bu di ñu siiwal béréb boo xam ne ñëpp xam na ko comme ñu xale wax xam lan terrain lañ am ci ñoo béréb bu siiw daal nga ñu di fa dajaloo rek pour jul di julli wa illaa su fekkee nag du jàkka du béréb boo xam ne siiw na ci loolu wala mbooloo ma di ñu néew béréb bu kenn xamul lool mu ne falaa si def ko
waa Saalum yeeg waa Louga yi ñi nga xam ne jàngat ko am xam nga def rek benn koñ rek ñu ubbi fa seen béréb naat yi sarax yeeg da nga lakk bu doon bu doon ci kii ñu xam ne léegi nguuru lislaam a ciy dox dañ leen di dàq te ay ate kenn ñu sa dëkk daañu la toroxal dañu leen di dox te ñoom daanaka mu mel ne dañuy jiite nit ñi di xëyu te loolu xam nga jàngoon nañ ko fekkee da ngay nodd ba noppi di jiite ñu di la fay nag di nodd bi ak jiite waaw wala da ngay nodd rek ñu di la fay waaye jiite ñu di la fay waaw ndax daanaka nodd gi ko yóbbaale nodd gi daanaka moo tax ñu di la fay mooy ni ñuy def ci réew yi kank yi ci arab yi dañuy am noddkat boo xam ne day nodd dañ ko amel ratib shahriyan wala asbuaiyan wa kalaamun ak wax sib nañ ko ba tey ba adda sax suñ gannaaw ba nga jullee soo ba noppi nga pour bi tulwaay ba jant bi waaje fenk kon xam ne biti set na ba ci ba xam ne léegi jant bi génn waaye laa ba adda fa jëriñ bi du ci ay génn gannaaw fajar kenn sib ko waddi ci atum ak tëdd sib nañ ko ba tey ci diggante boobu tëdd daal am na fu ñu ko sunnaale bu fekkee ne julli ji woo ci jàkka ji yaa ngi sa kër nga julli fadel ci ba noppi mu def ñaar rakkaay su bay ba daal ne nii tëral sa wetu ndey joor tëdd tuuti jóg comme sunna la waddi ci atum ak tëdd bàyyi na subxin diggante suba war ak ati fajirin ak ñaar rakkaay fajar yi dégg nga wax kañ daa yu kuréel sa dëgg kon sa dëgg atum boo kuréel jëtu nga la la sa lay man sa pour nga ulama yi dañoo bari ay wuute kii moom ngi jàpp ci ñi nga xam ne boole nañ ko ci tray bi sib rek kan waxtu bi six heures moins quart six heures moins quart paas waaw waaw mën na dem ba paas bi dana ko ah bunt bi jàpp paas bi yéen a ngi jàng baal yi ngeen la soo yi ngeen dégg mën ngeen cee jaar di ngeen waaw xam nga maanaam ñëpp ah kon nag jeex na ah waaw loolu nag kon kay waaye man damaa ne ko xam naa ko ci bind rek am na ñoo xam ne dañuy jàng dañuy gaaw a fàtte.
mokkal bi moo xaw a jafe waaw man nag mosuma jàng sax pour jéem a mokkal waaye ni ma koy jàngee nii rek nee na léeg-léeg may dox ñu daal sama xel dem ci may wax rek non comme si ñu bëri bi tax ba kam noonu ma koy jàng bu xale yi jeexee yomb leen jàng ko rek xam ko rek di nafar di yër rek daal jàng loolu xanaa kiis baax na am na kiis boo xam ne donga yi daara yi daan jàng alxuraan daan ñu ko defal pour ñu waxtu xam na yaakaar ne da war a baax ci xam-xam itam kiis bu am am solo la woon ñu daay ndongo daara ne ba tey waaw wal witru weetar nag moom sunnatu sunna la aakadu wal witru aakadu alal mashhur dana fàttali suma kon weetar mooy jiitu moo gën a far suma ay dund ay topp ka suma ko soxoon jullit muuru jant mastis qaa'un topp jullit baaw naan mu ne waxtuhu ak toog moom weetar baada isha taxiyatun gannaaw gee wér wa shafaqin ak gannaaw fàddu shafaq bil fajr ba fajr wa dari wa daruriyuhu waxtu daruriyum day dem ci suuf si la soxla ba ñu di ko soxla fas na xaf ohaa daggam moom julli suba lahu ngir wéetar li sa julli ak julli waaye la ma tam dégg ngeen ko de ñu leen lu garaaw de kii di farata kii di farata nga dog ko ngir moom muxtaar moom bu doon farata duñ ne la dogal day yàqu julli bi nga nekk day yàqu li ñu ci farata tax tey bi ñu sopp nga dog ko ndax suba si waxtoom des na du tax nga àgg ci fay nga wala nga génn ci muxtaar bi ndax boo doon génn ci muxtaar bi nga neelal julli ci muxtaar dana la faat nga neelal wéetar nga dab ko te kenn des na nga xam ne mën nga am nga neelal wéetar ba noppi julli suba ci waxtoom am muxtaar bi nga dog julli suba julli ci muxtaar bi wala di ba waaw moom la ñu wax wa fi limaan yi li ci limaan moo tax moom bu ko fàttalikoo ci biir julli suba gi dana dog wala du dog yaa yakaar sopp nañ ko ne mu ne wax illam yàq si doonte yaatuwul woon it al waxtu waxtu illa bi zak atee li ngir ñaari waxtu nag tarakahu mu bàyyi ko su fekkee ne kon yaatuwul al waxtu waxtu mooy li ma waxoon rek sax illa bi rakate ngir ñaari rakar lañ ko mën a dugg taraka mu bàyyi ko wéetal waaye laali salaati bi kaa jëri ñett de fekkee ne ñett rakar dama ne julli dog julli wéetal ba noppi amul rakar ci muxtaaru suba ni mottali mel na julli ko ci biir wala xam buñ fekkee ne dafa yow fekk juróomi rakar des ci guddi gi fa nga war a suba war a set salaam julli ak safa safa ba noppi soxla wéetal wala julli ñaar raakaay suba yi ma wala xaddama doon ko jiitaloon ne lu ñu ma doon wax ci ci law fekk tàmbali ba loolu ilaas ilaas bi ma xëy d'accord ba kon ko ne jiitaloon ne ko itam xam nga fii kon bu ko jiitalee du dox du ko du ko bàmm من يخطأ بثلاث ولو قدم قال لا شفع اولا اول الليل فيعيده يقول له ابن ngir mu bañ a def ni ñu ko waxoon ndax boo duggee rek mën nga daal di kabar rek noonu rek yéesal bañ a julli dara mu ni wa su fekkonte ne yow na li fekk ñu juróom ñaar waxtoo def zaata mu dellu mu dolli ci alfajara fajar waaye moom xajar rax yi ba suñ lu ñu xam nan la loolu farata la wala sunna la rax yi ba la ñuy wax dafa bari siyaaba trop astaqiru dana aajoo li ñuy yëg ñu ñeel yéene tax su aajoo xam ne dana dog yàgg parce que di nga shafa ba nag di nga yeewoo ak si ko nga julli shafa ñaar rakka weeta julli ñaar rakka julli rakka si li تخصها ولا تجزي لبي ان تبين من ديرنا تقدم إحرامها جيتك أرملا من فجر من فجر ولا تجزي ما نم دبي نم جيب فجر تكين الدين ما نم جيتنا سنتك فجر دفع وقتك boo kàbbare ba noppi mu leer na kat fajar ko tudd ci jël nga nekk julli fajar kooku du bay ndax waxtu bi ko tudd mu wala ko jiite moom fajar yi sa bayam lim bi mu taqaddum iramaha jiitu armalam ñu fajar yi ñu seen fajar falaw bi taxar doon te du woon nga xam ne da nga mën a xam am nga màngar bu mu lay xamal fajar bi waaye da ngaa nattale rek itam boo la juree rek ne duñ koy julli fajar bi waaw mu ne woon lu ba fekkee fat nag ndax saaru gàttañ la alal fatiha ci fatiha rek mooy fajar ah ñaari alam yooyu ci solo nga koy fajare gannaaw fatiha da nga gis bépp noon bépp taxat noon mu xaddisoon yi dañ ko ràggal ne ko man salaatiha alam alam amin min kulli aadaayi tadur lam amin alam sarakayta alam nasrah ne bol bi jullee fajar lam muhaddisoo nañu rek ñoom xam ne gis naa rek ci la ñu sukk fekkee ne darajee xaddis bi xam nañ ko muy saxiix amul sàkk muy xasan ba tey dana saxal ak àtte xasan moom buñ ko waxee daanaka diggante nag ci daraje bi ci nekk amul solo mashhuur moom itam jege na xasan waaye nag buñ ne xadis bi jëri foofu la dara ji bàyyi maanaam xadis bi boo xam ne bii jëri dafa am ay daraja mën na yërante mën nañu gënante ñun ci suñu xam mënu mën a tuddee ak jëf nga saxis moom mooy xadis boo xam ne isnaad bi dafa nekk muttasil ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñu xam leen ñëpp wér kenn jamu ci kenn kenn ku ci nekk mu wóor ni gisante nga nga toxal nga toxale ci moom mu ne sax xasan mooy am na ci ci ñoom kenn koo xam ne ak gisee mag ki mu soloo ci moom mënuñu koo waat wóoru mën na nekk sax waaye wóoru gis naa ci mu tafil leer ko toog ah mun xata ak maqto mën nañu wér lu gën a bari ci xadis Malik ak imam Abu Hanifa li ci gën a bari maqto lay doon te saxee ñoom dañ koy jàppale bu ñu demee ba ci saaba bi rek soxlaa si ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ ne ci la jëm te mu xadis bi tuddee ko maqto ba tax ñu ne maqto Malik yëpp imam Shafi nee na amul ci kaw suuf téere bu gën a wér moo tax Malik même musnad imam Ahmad ibn Hanbal am na ñoo xam ne nee ñu Abdullah doomam jooju yàq na ko ndax li mu ci dolli am na ci xadis yoo xam ne waaye sixaax yi juróom benn ñoom lu wér rek ci nekk maanaam ba tey am na ay wax mu ne wala ba tey sopp lañu iqaa'uha ak tàbbalam bi nga julli nga jullee ko si jàkka uma ak fajar yi wanaa bat bu ko defee dana wuutu an tahiyatu wal tahiyatu masjid bi waaye wa in fa'ala fekkee ne jëf na ko bi bay ci néegam itam lam yarka dootu ko rukkoo dootu ko julli maanaam feneen moo xam jàkka la wala feneen wala yuqdaa deful fay ci lu dul farata julli yëpp xayru fardin lu dul waaw wala yuqdaa deful fay xayru fardin léeg-léeg ma jàppe ko jàkkaayam ba defe ne lu lu ma fekk mu ànd ko wala yuqdaa deful fay xayru fardin lu dul farata illaahi yëpp moom raxi ba boobu te mooy fajar moom fas daañu fay ko li zawaal yi ba jant bi jéng foo ko fas di ko fee li zawaal jëfe ko rek mën nga koo fay nga am tiyaaba way ko qimat ñoom nga xamala nga xamale fat na ak suba suba wa huwa tëmbir moom jënd ñu ñu ne ci mu ne ñu jàkka taraka mu bàyyee haa raxim boobu wa su fekkee dafa nekk xaari ja wa tëmbir ci jàkka ja nag raka aha mu julli ko fa soog a ñëw julli kañ la koy julli bu fekkoon bu ko fekkee ci bitti dinañ yaxaf nem ragalul fa waat rakkaat yi benn rakkaa raw ko ci julli limaanu suba gal bu fekkee ne ragal na ko nag mu ne mot fekk fa waaye yàlla mu ne alëf la lu gën ci naafi la kasratu sujud yi mooy li ñu waxoon rek bari ay sujud aw tuulul xiyaam yi wala guddaayu taxawaay ba xawlaan moom dafa naan lii du ko fi nekk di ko indi